people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal ci weer wii ñu nekk muy weeru safar gi ñu jëm màggal di ñaan yàlla na sunu borom nii dal sunu yoon ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm di ndokkeel ñi nga xamante ni ñooy sunu kilifa diine kilifa aada yi ci weeru safar gi parce que weer la boo xam ne weeru jullit la tey nag ñoo am mbégte ci dalal koo xam ni euh, moom dama naan ambassadeur la fii ci sunu kër muy Ndiaye Rambo ku suivre kër gi miin ko bu baax muy sunu grand nekk grand boo xam ni ku ñu nangul la parce que heure bu ñu ko nee njaay lu mu jàpp da koy bàyyi ni ñu ñëw leen yéen samay rakk ngeen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax grand dañu lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre fii ci People 221. aywa siyaar ak màggal bég ak bégle sopp ak wóolu. bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed gërëm suñu ndey ak suñu baay di gërëm kilifa diine yëpp. di leen nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen ay people 221 ñu ngi leen di siyaare di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyuwaat encore une fois yéen yi nga xamante ni yéen ay yéen ay posé question bi. Mhm. yéen ay caméra macha allah ñu ngi leen di siyaare seen site bi ku ne xam na ne duñ ci gan di gërëm. Sénégalais yëpp macha allah. Mhm. nio bi am na solo euh, li nga wax rek kër gi doo ci gan mën naa ne doo fi détail grossiste nga fi tey fi may njëkkee euh, ñu gis euh, fan yi paase événement wàllu yu bari mu doon ay événement yoo xam ne dañ koy rapporté lan moo waral loolu ñi dañ ko jàpp mystiquement kenn comprendre lu qu'est-ce qui waaw balaa loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaale sénégalais yëpp suñu papa. Mhm. suñu maam suñu sëriñ. imaam Alioune Ndao waaw ndeysaan ñu ngi koy jaale Sénégalais yëpp mhm. mu nekkoon koo xamante ni defar na ñu bari ñuy defare mhm. jàngal ñu bari ñuy jàngale mhm. yar ñu bari ñuy yare yàlla dogal mu dëdd fi ñu koy ñaanal yàlla yàlla xaaree ko àjjanay firdaws allahumma amin amin yaa rabbil alamin waaw mais foofu noonu foofu noonu ci demu imam bi mu jur coow lu bari fii Sénégal ñii naan di ko ju di ko joxoñ baar di joxoñ mm-hmm. baaraamu tuuba état senegal mm-hmm. en tant que euh, citoyen en tant que sénégalais ban jàngal nga am ci loolu. Mm, xam nga nag Sénégal neex naa waxee mais naqari naa déggee. imaam yàlla dafa dogal man bu fekkee am naa lu may rëccu jox ma ataay bi. Dudu Gambien jox ma ataay ji Dudu Gambien moo doon ataay nii. xam nga yàlla dafa dogal. bi yàlla dogalee man imaam musuma koo teg loxo musuma koo jox loxo loolu bokk na ci li may rëccu sama àdduna parce que wax dëgg yàlla yàlla dafa dogaloon ma sopp ko bëgg ko parce que dama ko doon xoolee sama waajur bu góor mm. waaye moom bi yàlla dogalee mu génn dafa ni am na ñu ko laaj ne ko léegi ñi la def lii loo leen toppee mu ni jéggal naa ñëpp allahu moo boobu nag laay jël rek teg ko man mm-hmm. comme que jéggal na ñëpp mm-hmm. jéggal na ñëpp certes mais demam bii dina tax ñu bari buñ tëddee du nelaw. Mhm. waaw polémique yi jaru ko nan ko ñaanal yàlla. Mhm. Mhm. tey ma ñëw ci li nga xamante ni mooy soirée Wally yi daan am ñu bari ñu bari gis ni dañ ko renvoyé ñu naan mystiquement la doo comprendre daal. mystiquement mooy c'est-à-dire. ñi naan non dañu commencé jàpp Wally léegi ci mystique staff bi moo tax ñuy renvoyé soirée yi. déet su renvoyé wu naa parce que benn soirée la woon. te defe naa yàlla moo ko renvoyé. Mm-hmm. dëgg la <laughs> ndax yàlla moo taw. Mm-hmm. Hmm? muy sécheresse bi nu euh, bi nu waroon def bërki démb. Mm-hmm. mais maam yàlla moo moo taw ñu rapporté ko. mais man gisuma ni affaire musique la affaire renvoyé la. waaw affaire de yàlla la. yàlla bu soxlaa. <laughs> waaw ñëpp ñàkk. d'après ñu gis bi ñu jógee ci événement boobu am coow lu bari loo xamante ni amoon na fi. ñu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy waa kër Waly muy les Faramareen parce que euh, ku ni Idaly ni Waly ku ni euh, délégué ni Waly am benn tooñ boo xamante ni defoon nañ ko fan yee bi nga jàngatee loolu naka nga ko gisee. waaw yaa ko wax tooñ la tooñ la defe naa mu mbir mi mu ci mu ci loxo yoon. Mhm. kon nan bàyyi yoon def liggéeyam. Mhm. mais en tout cas li nga xamante ni daal parce que loolu ñu bari interpellé na ma ci mais dama ne woon du ma ci wax. Mhm. mais yéen dañoo bokk lu bari ba tax na bu ngeen ma laajee ci lu bari rek. Mhm. il faut ma wax ci sama xalaat. dëgg la parce que man du ma jëfee xol. Mhm. du ma waxee xol. man sama lépp ci xel lay jóge ndeysaan Idaani ak Modou Amar ñu ngi leen ñaanal yàlla foofu ñu nekk ñu génn fa. xale bi nga xamante ni moom lañ jotaloon moom it yàlla dimbali ko. Hmm. ommat ko ba mu bàyyi saaga. Hmm. parce que saaga ku ne xam na ni. Hmm. baaxul. ku nekk xam na ni saaga baaxul. yàlla ommat ko. ba mu bàyyi saaga. ak ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yëpp ñoom ñëpp di saaga. la waaw. mais Wally daal def loowul. def loolu waari xamul lu bon. xamul lu xamul lu soxol parce que ñu bari ñu ngi naan comme délégué la ak idaal yi loolu ñu ngi naan dañ koo def ci ndigalu waali parce que <laughs> parce que booy bi da doon saaga waali extra yow mi nga xam ne ci biir nga bokk est-ce que mën nga indil leeral ñi nga xam ne ñooy suivre. non man man man xam nga li nga xamante ni mën naa ko leeral parce que mbir mi du dama koo fekkee. Mhm. fekkewu ma. Mhm. yëgu ma tinu ma ni ko ñëpp jotee laa ko jotee ni ko ñëpp gisee laa ko mhm. mais li nga xamante ni mën naa koo wax te am ci droit mooy yoonu Wally nekku ci waaw mais d'après loolu noonu est-ce que tey Wally mënta yàq image am ci international parce que boo xoolee euh, affiche yëpp tur Wally moo ci nekk wala photo Wally waaw waaw nag xam nga yàlla Wally dafa am nu ko yàlla mooñee mu doon benn doomu aadama boo xam ni lu xew ñu tudd ko mhm. xam nga interview bi may def mhm. yàlla dogal na man maa ngi nii Sénégal. Mm-hmm. waalee ngi ca Mauritanie. Mm-hmm. mais gis nga yéen a ngi koy tudd. Mm-hmm. noonu la demee. ay mbiram moo demee noonu. lu xew dan ko ciy tudd. te du ci dara man fii lu ma wax man la engagé man Ndiaye Rambo. waxuma ci turu Wally Seck. man en tant que Ndiaye Rambo simbukat mooy wax nii. noonu la demee. léegi nag xam nga di ànd ak Wally wala taq ci Wally wala dëkk ak Wally du caagin loo def waali la. Mm-hmm. yàlla xam na ne am na ñoo xamante ni dañuy def ay mbir ay weer duñ gis waali. Mm-hmm. yàlla xam na ko yonent bi. waaw mais waali moom ay mbiram moo demee noonu. ba lu mm-hmm. xew rek ñu tudd ko. xam nga événement yi nga xamante ni yëpp affaire yi jàll na fi yëpp daal. mbiru suñu borom la. suñu borom daal moom mooy waneeti boppam. ne lu waay am. maa la ko jox. lu waay ñàkkit maa la ko xañ. Mhm. mais d' après loolu noonu est ce que yéen ñi nga xam ne yéen a staff Ramaren bi comme ñee tamit seen njaboot la ñu bokk te caabi féete na leen ginnaaw def ngeen ci ay démarches pour jéem leen a ñaanal intervention. waaw bu ma waxee dëgg nag démarche bi man defuma ko ci dégguma ko ci. Mhm. waaw te xam nga dafa am yenn tooñ yoo xam bu ko nit tooñee démarche ci day mel ni da ngaa bokk ci tooñ ba. Mhm. dañ leen ñaanal yàlla rek ñu génn foofu te li leen fa dugal ñu bañ koo defati. Mhm. mais jàppoon lii mën na mën na mën na yàqu tuuti rek ci répétition waale. xanaa déggoo xam nga bu fekkoon waali da cee taq. Mhm. wala yoonam nekk ci wala mu xam wala wala wala. Mhm. boobaa ñu ni mais yoonam nekku ci yëgul sax ne xew yàlla xam na ko. yàlla xam na ko ni nga ko yëgee lu ko yëgee yàlla xam na ko billaahi barki Sëriñ Babacar Si. xamu ci dara. Mhm. xamu ci dara mais dafa weex donc capitaux. Mhm. waaw mais tamit ba tey ñu gis ci ki nga xamante ne mooy Arma. Mhm. di sa frère. tudd ko ci cooli moom tamit jot nañ ko convoqué. est-ce que loolu tamit tey bu nit ñi taxawee ni non lii waa kër Waly génnuñ ci nit ñi nañ ko mën a gëm. waaw mais Arma Arma du Waly. ñooñu ñëpp kenn du ci Waly. ñooñu ñëpp kenn du ci Waly yàlla dogal na nag dend na nag Waly. di nit ñi di gisee. parce que ñu ngi ci ay service su waal yi. capito léegi yenn yi bu amee ñu tudd ci waal yi mooy li ma la wax rek waal yu mm-hmm. weex dunq mm-hmm. hmm? waaw mais waal yi loolu yoonam nekku ci. Mm-hmm. waaw. d'après ma déggaat ñu naan waal yi bientôt daanaka concert bi mooy concert bi nga xamante ni moo naroon nekk dernier concert am ci carrière parce que day bàyyi aar ñu bari di wax loolu est-ce que mu bokk ci staff bi mën nga ñu jëndi lay leeral. bàyyi aar Wally Seck mënut a bàyyi aar. parce que Wally jàppul aar aara ko jàpp. Mm-hmm. <laughs> waaw. Mm-hmm. waaw Wally Wally ko bàyyi teel na quand même. Mm-hmm. Wally liñ bëgg ci moom ñun ñi débuté ak moom. àgguñ fa. ndeysaan ñun commencé guñ. dañuy door. peut-être. mën na nekk dañuy stand by tuuti. xoolaat toogaay bi. xoolaat waxin bi mhm. xoolaat jëfin bi. Mhm. mais bàyyi moom. Mhm. nekk gun ci élan boobu. fan yee passé ñu gis ay frère Wally muy Bambaali ak Mandiaye Seck déplacé wu dem fi nga xamante ni mooy suba teel mu indi woon coow lu bari a tant que ngay seen grand di seen njiit ñoom ñëpp naka nga jàngate loolu. waaw Bambaali sama rakk la. Mandiaye même chose. Wally mii seen mag sama rakk la. c'est cool. Hmm? bu nekkee ci côté bii di bay Bambaali nekk ci côté di bay Mandiaye nekk ci côté bee di bay mhm. baax na mhm. mais ñoom ñëpp ci benn saaku lan koy def mhm. buñ koy yàq ci benn bool lan koy yàq ñoom ñoo bokk seen marraine ñoom ñoo koy gérer waaw kii day jëli fee comme mu ngi mel ni yow yaa nekk deux cent vingt mais sa frère mu ngi feneen te bu ngeen wutee ci kër gi ngeen indi c'est cool loolu la demee. Mhm. c'est pas grave. Mhm. Mhm. mais tey euh, comme ñu doon wax naan daanaka waa Subateel ñooy ay adversaire u tey ñee di ay propre frère Wally déplacé wu dem fa est-ce que loolu noonu après mënta indi benn concurrence ci diggante Wally ak Boy yi. jàpp ma loolu ah, man. ku nekk nag mën nga gisee nam la neexee. mais dama bëgg li ma gisee nii ñu déggee ko noonu. waxuma nag ñu jàpp li ma wax. Subateel suba teel. ñoom danoo nekk ci réew mi di liggéey seen liggéey. Matar jiite ko. miinuma ko torop. yàlla ma tiim. mais jàpp naa ni nit ku baax la. am na ku ci nekk muy sama rak Sidi. comme ni Waly nekkee sama rakk ak ñoom Mandiaye ñoom. Bambali. loolu mënta yàq dara. ci showbiz bi showbiz la nekk Matar day liggéey booy dem foofu jàpp ni kii mën na leen jàppale ñoom ñu jàpp ni seen carrière mën nañ ko continuer fii mm-hmm. mais est-ce que tamit taxul ni Mandiaye benn bés li mu ñëwoon kër Wally en tant que frère am euh, si garde ni ko doo fi dugg loolu est-ce taxul tamit mu mer ba jël ay initiative am ah Mandiaye dafa mës ñëw foofu garde corps ni ko doo dégg naa loolu waaw bu fekkee da xam nga dégg nag wóorul mm-hmm. hmm? fekkee moo gën a wóor mm-hmm. wala kin def jëf jooju wax la ko. Mhm. mais bu fekkee parce que Mandiaye jàpp ma ni am na sens interdit kër Wally Seck. Mhm. Hmm? parce que yàgg ngeen ko gis foofu ak ay caméra mhm. muy def ak Wally ay business. bu fekkee loolu am na. dama jàpp ni kon ku bees la. ku bees la ku ñëw ku xamul Mandiaye. waaw mais Wally du doxaleeg noonu ak famem Mhm. Mhm. mais tey ban relation nga am ki ak ki nga xamante ni mooy Sidy parce que. souvent dañuy gis chaque chaque soirée ba ci bii passé. Mhm. daanaka man dama gis Ndiaye Rambo ma woon. taxaw VIP. jël espace bu yaatu. di bàkku di def benn duo moog Sidy. Mm-hmm. mu rafet loolu daal. waaw waaw parce que dafa rafet. parce que c'était cool. sama rakk la. bëgg ma. xam ki ma doon. man it ma xam ki mu doon. parce que man. nit du ma jënd ci ay koppar. Hmm. man dangay xam ki ma doon ma xam ki nga doon. Hmm. di sama rakk la. Hmm. keroog sam di ma ñëw mu woy woyu simb. te ku ne xam na ni man simb laa bëgg simbkat laa. dëgg bëgg naa simb avancé. ku ma ci mën a jàppale. dama ciy dem ba jeex. mu woy simb ma taxaw jàkkaarloog moom def ay yëf. lu rafet mu neex ñu bari. Mhm. waaw. Mhm. tey eh, d'après ñu ñëw ci programme bi nga xamante ni moo am Mourtani. Mhm. lan moo waral sa absence su ñàkk dem Mourtani. Hmm, sama absence nag du dara. Hmm? juste que tey la samedi suba incha allahu rabbi dama am benn euh, spectacle boo xam ne war naa ko jouer. muy simb. léegi nag contrat la bu ma signé bu yàgg. munu ma ko fee bàyyi di dem Mourtani parce que Mourtani ku ne xam nañ tey la. Mhm. mais buñ joué tey suba rek lañ mën a ñibbisi. Mhm. te damay ragal diggante bi. Mhm. affaire yi am contre temps man tamit ñii àggali seen contrat man ma yàq contrat jàmbur. ba tey damay def ci Mourtani boobu ki nga xamante ni mooy Arma ñu bari jàpp ni li waral ñàkk demam ci Mauritanie wi mooy problème bi nga xam ne amoon na fi fan yii ba ñu convoqué woon ko. man de yàlla xam na ni sax yëgu ma demul demul. yàlla xam na ko. moom bokk na ci ñun convoqué. Mhm. yàllaa ma tiim sérieusement parler. Mhm. parce que man am na yenn détails yoo xam ne duma ko bëgg a mhm. waaw parce que parce que daal. dama dépassé loolu. am na esprit yoo xam ne man dama ciy bëgg duma ci bëgg a laajte daal. noonu la ma yàlla bindee. comprendre nga yàlla xam ne xaw ma ni woon demul yooyu yaa ma ko wax. mais tey ñi nga xam ne ñooy njabootu Wally muy idaali ak délégué est-ce que tey mën nañu xaar Wally jëlal leen avocat taxaw leen ba ñu génn fii comme moom tamit daanaka moo taxoon booy def lii. Hmm, Wally de xolam nag moom dépassé na foofu. Hmm? waaw mais. bugguma daal mu def loolu kenn jàpp ni moom da bokk wala bokku ci en tout cas daal mën na mën na ko def parce que xolam xolam àgg na foofu. mais bëggoo mu def loolu. non waxuma bëgg naa wala bëgguma. Mhm. kooku kooku moom moo koy choisir. Mhm. bu fekkoon man la ci laaj sama xalaat. Mhm. bu ñëwee dinaa wax ak moom ci sama xalaat. mais du doon loo xam ne dama koy wax. Hmm. ci penc mi. Hmm. Hmm, bu ma laajoon sama xalaat dinaa ko dee sama xalaat. mais nag comme que moom magum jëmm la nag. moom mooy xam nu muy tojee bopp dina xam. du ñàkkit ba tey ci staff Wally bi laay des fan yee passé sa frère ñaaxariñ loo. ñu gis mu génne woon benn vidéo benn paa bu nekkoon ci benn restaurant. mu sinap ko. di expliquer mën naa ko tënkal naan mag ñi nga xam ne dañoo foyoo seen ndaw. fii rek dañu mujjee di liggéey ci ay restaurant yi nii. daa loolu juumte la. Mhm. parce que man na ko bàyyi. Mhm. Hmm? Mhm. bu ko matul bàyyi am na ko muy àndal man na kooku bàyyi. wala ki ko doon servi ndox noonu du ñàkk kookoo moom restaurant bi. ndax ku ne xam na ni bitim réew. ñoom amuñu problème boobu. <laughs> fii da ngay dugg si taxi. <laughs> borom taxi bi waxaale ak yow 1500. nga fay ko 1000 francs mu yóbbu la ci 1000 francs te moom moom taxi bi. Hmm? yooyu yooyu yooyu yooyu juumte la. ma jàpp ni moom xam na ni daa juum. wax naa ko publiquement. daa juum. xam na ni moom it daa juum. Mhm. jàpp naan ne dootu ko defati. Mhm. Mhm. tey du ñàkk euh, mën nañu xaar bientôt Ndiaye Rambo solaat déguisement. mais man ma maa ngi simb ba tey. yaa ngi simb ba yàlla xam na ko fan yi nag asamaan si xam nga danoo nekk. ci wax set. waaw waaw te booy organiser da ngay da ngay da ngay sóoraale tamit ci nawet. lan nekk wax set. xiin taw xiinu taw la. moo tax ñu ni programme yi incha allahu rabbi ba dem màggal ba ñëw. Mhm. parce que ñu ngi ñaanal suñu mbokk murid yi. waaw du ñàkk di message boo ci lancé parce que gis nga màggal gi mu commencé ba tey mhm. kilifa yeeg ñëpp ngi dal ci xale yu jigéen yi commencé di salaan sax du ñàkk. Mhm. en tant que porteur de voix di nga message boo xam ne di ko lancé foofu. waaw di ko lancé nag suñu suñu suñu suñu suñu suñu yaay yi. bu ne suñu yaay yi mooy xale yu jigéen yi. greffage yi ngeen teg ko fii fi ngeen dëkk. ngeen ngeen laxasu wala ngeen def ay petite queue. wala ngeen def ay taatu salaat su ko defee. Mhm. bu ngeen demee ngeen mën a muuru. Mhm. parce que sëba boo ko jëlee yóbbu ko Touba mooy bëgg nga koo wane. Mhm. seen we yi ngeen di monté. seen xef yi ngeen di monté ngeen dimbali ñu ci. Touba dëkku sëñ Bamba la xaadimul xadim bàyyi basak baara maam yi dana ak Seex Mbàkke góor ga demal ga boo jaari maa yombe. moom dafa woote ne ñëw leen santale ma yàlla. ñëw leen santale ma yàlla nag nit du ko woote ba pare yow ngay dem foofu di def leneen. Ah? góor ñi ngeen dimbal ñu ci sàcc gi. <laughs> surtout. seen sàcc yi seen jikko sàcc bi da koy bàyyi seen i kër. Mhm. bu ngeen ñëwee ngeen soraat ko parce que xam naa ne kenn mun leen bàyyiloo sàcc. Mhm. ah mhm. di ñaanal ñëpp màggalu jàmm. ndax ku ne xam na ni man. taalibe sëñ Babacar Si laa. dëgg la mais nag sama yaay ku ne xam na ni surtout sëñ Issa Dieng borom Dieng ak. lagan sama yaay bi ma sukk jur. waaw kon man. maa ngi ci paaka maa ngi ci bii boor. Mhm, maa ngi ci bee boor dëgg la. waaw di ñaanal ñëpp jàmm màggaluk jàmm incha allah. dëgg la hmm. tey euh, sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo. waaw di gërëm sénégalais yi di leen gërëm yéen tamit ah, di gërëm seen internet yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy faral di suivre. Hmm. di gërëm borom kër gi di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko yéen tamit. Hmm. yàlla sàmm leen aar leen ba ngeen am ay télé. parce que nag xale. bu nekkee ci réew am doole dooley sàcc. Mm-hmm. am doole dooley agressé. Mm-hmm. am dooley tux am doole dooley naan def ko. Mm-hmm. kon yéen jar ngeen a jàppale jar ngeen a félicité. seen genre gi la président wal di jël. di def ci ñoom. parce que yéen ku def ci yéen ngeen liggéey parce que xam tax. da ngeen am dooley agressé. am dooley sàcc. am dooley mais dugg leen ci loolu. kon di leen yàlla yàlla sàmm leen aar leen. te seen kilifa yi. ñu gën leen jàppale xam ni yéen yéen a ngi liggéey. fawu leen. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. ñu bañ leen jël rek leen jox ay weccit ñoom ñuy lekk maa ngi koy wax ci ci. surtout maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy wax ci. maa ngi koy wax ci réseaux sociaux yëpp ah. Mm-hmm. ci réseaux sociaux yëpp. ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñooy patron yi. ñooy patron yi. ñi nga xamante ni ñoom ñooy yenu caméra yi. di leen jëlal Ndiaye Rambo. Hmm. di leen jëlal ma Samba. Hmm. di leen jëlal ma Demba seeni i di évo di di di di euh, internet yi di gën a bari. Hmm. ngeen ne am xaalis. den leen ci jox. ngeen bàyyi di leen jox di leen compal. pas sax ko jox. Ah, di lekk tuuti loolu baaxul ah. ngay xuus taw bi loolu baaxul. Ah. ñoom ñoom ñoom da ngeen yéen da ngeen di toog ci clim yi. ñoom ñu nekk ci naaj bi tax xanaa xamoo yow mi nekk ci clim bi. ki nekk ci naaj bi la ko montal. respecte leen ñi nekk ci naaj bi. dëgg voilà mu ngi noonu mu nekkoon. di gërëm sama yaay. <laughs> sama yaay mère Kandji Socé. Mhm. ah. Mhm. cere bi sama yaay c'est grand grande dame. ndeysaan. jaaykatu cere la mais grande dame la sama yaay taxul or taxul jamaa. ndeysaan. mais sama yaay grand dame la. je suis fier. Mhm. tayal sama yaay. di ko mooñal di ko tojal cere ji di ko yenu legetam. ndeysaan. nan fonk suñu yaay yi. ndeysaan kiy gis sa yaay. toppatal sa yaay balaa sa yaay dudd. Mm-hmm. xale yu jigéen yi jàpp ne danoo taaru. nag mais mais mais Ndiaye am na lu ñëw sama xel lu ma fàtte muy coow Nabou Daas ak Rangou parce que tamit actualité la. Mm-hmm. ñu gis ni gars yi dañu dañu manipuler nit ñi nekk ci réseaux sociaux yi lu leen neex wax. waaw ñaar ñooñu danoo réew. <laughs> un danoo soof. Mm-hmm. trois danoo ñaaw. trois danoo xayadi. parce que ñoom bu ñu jàppee ni ñoom ñoo dàq ci Sénégal du ñoo xamu yëguñu li xew sax. Mhm. damaa yaakaar ni génnuñu. Mhm. ba gis xale yi di mindaanu. Mm, waaw surtout. wala ñu xale yii nga xamante ni ñooy fubeere. Mhm. ñii di raxas duus ñoo leen dàq ñaar fukki junni yoon gën leen a jekk gën leen a diiñ. indiwee. te ñoom nekkuñ ci internet bi di def affaire yi. dañu war a régler. parce ñoom danoo jàpp ni. taar. ñoom bu ñu xoolee bërki démb ni ñu meloon. ak mhm. tay ni ñu mel dinañ xam ne am na différence. Mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen invité ñoom ñaar. Mhm. ku ci nekk boo duggee sa toilette di sangu. nga taxaw sa milliard xool ba xam na nga meloon bërki démb noon nga mel tey. am na différence. sa yu bari wàcc na. sa yu bari ras na. même bu fekkee da ngaa dem ci docteur yi ñu defaral la ko. jéem leen a maanu. jéem leen a yaru. jéem leen a respecté sénégalais yi. parce que jigéen jigéen. mooy magasin yàlla. Mhm. yéen man li ma gëm nag laay wax. Mhm. jigéen bu bon amul. dëgg la même nabu daas bonul. Mhm. même rangu bonul. mais dañuy def lu bon. di wax lu bon. la ñuy def moo bon. la ñuy wax moo bon mais ñoom bonuñu. di ñaanal jigéen ñëpp jàmm macha allah jërëjëf mu ngi noonu mu nekkoon sunu gan ñu am mbégte lool ci dalal ko fi sunu kër. di ko ñaanal nag parce que ku disponible la moom heure boo ko woowee day sawar ci wax li nga xamante ni mooy njëriñu réew mi te lépp lu mu lu nekk rek dañ ciy jàng kon ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm incha allah nag dinañ leen fexe indil spécial Ndiaye Rambo ànd ak moom sumb di début à la fin fii ci FIFA 221. incha allah bientôt. jërë ngeen <laughs>